waaw ñëpp dégg nañu wala tey jii moom fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan ak ñun ba tabaraka allahu ñu ciy kontaan tam di ci di ko ci ndokkeel ndax euh, at yii yëpp mën na tardé di ñëw te di ci waxtaan waxtaan yu am solo ba tabaraka الدعوة الكبرى بمولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم waaw muy jëm boo xam ne bu am solo la ndax dañuy wane ne yonent bi mooy ñaaxal bi kubra mooy xéewal bu mag moom yonent ah jumtoom tax na kon moom thème boobu lay waxtaane tey incha allah dinañ ko yóbbee kaddu gi ah mu waxtaane ko kon ñu ngi fii suñuy napp ah di ko déglu dégloo xoolal xel bi tabarakallah yàlla na ko yàlla defar yàlla na yàlla barkeel bi jaayee rasulillah ko si yàlla barke te baax te bëggal te gën di jaay say jiw yu ñu waxal jour te bu yàgg lool. wala jaamu yàlla ci yéen bu mu ci doon rek yàlla na ko yàlla nangu bu nu ko nangulee yàlla na ko yàlla fulal bu nu ko fulalee yàlla na ko boole suñuy wéyum yi jiitu yi dund boole ci njaboot Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp ndokkeel bu baax ku tedd ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel ko ci fanu leer yi ndokkeel ko ci fanu tedd yii ndokkeel ko ci fan yi nga xam ni arsh kursi sidratul muntaha malakul aala haahut laahut malakut ñoom ñëpp recevoir dañ ay xéewal yu bàyyi koo fii ci àdduna gën a ji leen ngir jëm ju tedd muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kooku nga xam ni guddi yi moo yëngal béy yàlla ba guddi yi moo tax malaayka yi bu doon ne dañuy sonn de ay nit ñu ne sonn nañ ngir bind ay tuyaaba ci jàng ak Alxuraan ci laa ilaha illa allah ci zikr ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ci toog ci xalaat ci bëgg ci feddali sunu cofeel ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon ki waral loolu ndax jarul ndokkeel kon marhaban ya rasulallah ñu ngi lay ndokkeel te yëpp lañ ci suñu ruux yëpp lañ ci suñu xol yëpp lañ ci suñu yëpp yëpp ci suñu sixième sens ni moo ngi bokk ak ñun jotaay yëpp nañ ko waaw imaam mu ne loolu amul benn sikki sàkk ne fii dafa bokk ci xadaraata bi hmm. fii dafa bokk ci pëyin bi fii dafa ci këram bi fii daa ci gox yi nga ni bu ko gëstoo dina xam ni njabootam ay soppeem rek ñoo ko dëkkee kon jazakallahu ya rasulallahi bal ko jazaka ya jiital ci nuyoo bi ak ziyaara a al xalifa al xaaj Mouhamadul Munir ndokkeel ko ñaanal ko yàlla a xilaafa a xilaafa moom al xaaj Mouhamad Njëgël xilaafa moom al xaaj Ahmad Baro Njëgël te ñii ku leen wuutu amul sikki sàkk ni bokk nga ci xalifa Cheikh al xaaj Omar yi bokk nga ci xalifa Mawlana Cheikh Seydi Ahmad Tijaan yi bokk nga ci xalifa ah, sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam sayyidul xalq ñaanal ko yàlla yàlla ko yàlla bàyyi ci kanamu jaboot bi yàlla na yàlla mbir benn bi aalim la abid la borom xam-xam buy jëfe xam-xamam la ñaareel ba ibnul walid jaddul walid loolu yombul doomu nitu yàlla la sëtu nitu yàlla la sëtaatu nitu yàlla la sëtër ñi nitu yàlla la Mouhamad moo ko jur Ahmad jur ko Mouhamad jur ko Mahad jur ko te ñooñu ñëpp ay wëli ñu leen ñetteel bi mooy kii imaam mii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel yal na yéen bi nangu leen di leen nangu leen suñu mbir baax àddina ak alaaka yal na yàlla nangu leen yal na yéen bi nangu leen waxtaan bi aju ci an ni'matul kubra fi mawlidi sayyidil bashar sallallahu alayhi wa sallam muy xéewal gu mag gi nga xam ni moom la yàlla jagleel te jagleel boobu mënuñu koo am ci keneen mënuñu koo amee woon ci neneen mënuñu koo amee woon ci leneen lu dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yàlla ci boppam ci maandoo wax naa leen ba tàyyi ne leen suñu maam Adam alayhi salaam nga ni ñun ñëpp ci moom lañu sotti ko muy yonent mais kenn yónnuñu ko amul dara lu muy servir jaar ci nubuwa wala ci risaal amul dara loo xam ni andi woon na ko pour jariñ ko jaar yi ci wàllu ubudiya ci jaamu sunu diggante ak sunu borom kon moom moom maam Adam alayhi lan la ko Iblis bañee amu ci benn amul amul ko benn importance mu bañ ko puisque mission bi muy dox moom Iblis maam Adama mënu ci contredire dara mënu ci dindi dara mënu ci yàq dara kon lan moo tax mu bañ ko. gàddu na leeru Seydina Muhammadin mu xam ni leer gii bu ganee àddina ruux gii dugg ci jëmm ci mu war a dugg muy al insaanul kaamil muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy échelle bi mbooleem pexeem ak liggéeyam ak yàqam ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy njabootu yàlla kon. mënuñu woon jariñoo xéewal yu mag yi ñu yàlla defal lu dul ne dañ ko ci sayyidul xalqi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi subhanahu wa taala borom wax ni te demoo ci alquran puisque mooy base bi gën a am solo ba tax bi ko yàlla di joxal bi bi mu koy tagg bi mu koy feeñal bi mu wax mooy kan bi muy wax njàmbaaram bi muy wax xéewal yi ko defal lépp boo demee ci biir alquran di nga fa fekk borom bi subhanahu wa taala mu waxtaane ak ñi mu ko war a waxtaaneel te mooy gars ni. gëm nañu yàlla gëm yeneen bi gëm bés benn moo tax fii sanaa illahi taala alayhi wa izhaarihi azima qadrihi اعلم أن في كتاب الله العظيم آيات كثيرة بجميل ذكر المصطفى وعد محاسنه وتعظيم أمره wa tanwiha qadrihi fi ma jaa min dalika majii al madxi wassanai ka qawlihi taala laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim ñu ne moo tax kenn du moom wallaahi bis mu ne ma wax ni bu dee ne dañuy linkaa wet bi waxtaane yonent bi gàmm dagg yonent bi nañu dem tere ko yàlla bu nu ko yàlla terewaatee bind beneen téere yabalaat yonent bi sallallahu alayhi mu ñëw tere nu loolu ñu bàyyi waaw am na gàmm boo xam ni ndeysaan imam as nii mu ngay wax ni mu ngay wax ni yàlla ngay jaamu yàlla ñëpp jaar nu yàlla di jaamoo yàlla mu ne yàlla ngay ut lu ko neex ci boppam di tagg sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon nag ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moom la maam Cheikh Al Hadj Ahmad Baro wax ni inna allaha kaani loolu dama bëgg ngeen mokkal ko bis bu ne imam wax ko amarakum bi amrin badaa fiihi bi nafsi wa samma bi malaa'ikatil qudusi fa qaal wa lam yazal qaa'ilan samii'an aliima xoolal wax ju riis jooju maam Alaaji ak Koro wallaahi wax jooju wax jooju rek doy la waxtaan inna allaha amarakum bi amri mu ne yëg leen ni yàlla mu tedd bi borom doole ji soxlawul ndimbal xam-xamam amul tàmbali amul jeex léppam di dox baynal kaafi wan nuun amalakum bi amrin digal nga leen ci mbir moo xam ni day daf leen lànk rek ñu ne ah mu ne ku lànk tam yàlla def na ko ba noppi badaa fiihi bi nafsi yàlla ko tàmbali dooral ko boppam waaye ñan la ci njëkk a neex de gaa ñi nga xam ni laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna ma yumaruuna mooy malaayika yi hmm. yàlla invité leen ci gàmmoom bu riche nga xam ni yàlla moo koy dëbbe ñoom yonent yi ñoom malaayika yi ñoo koy aw wa sannan bi malaayikati alqudsi fa qaala walam yadal mu ne yàlla julli ci yeneen bi te dañul di julli ci moom qaa'ilan saa bu nekk ci jamono ju nekk yàlla ngay julli ci sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sami'an wala li jël yëpp mooy yàlla mooy ku moo ngi déglu salaatu ala nabi yi war a jóge ci ñun jëm ci moom kooku yàlla du ko tal xamul mboolem jaamu yàlla bu nit di jaamu yàlla am na faraayu am na sunna am na mustahabba am na makruhaat am na mandubaat am na xaraam am na xalaal ba mu des salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam boo ko dullee ja boo laalee boo laabul boo amee janaaba boo amee jàpp booy nelaw boo tëddee boo toogee booy dox ci mbedd booy jaaxaan jimaa booy julli rek yàlla dina kon samiya moom loolu rek mais alima moom laaj Ahmad Baro nee na ba pare mu defal mandarga gaa ñi nga xam ni dañuy julli ci yonent bi foo leen gis dañuy baax dañuy yiw dañuy rafet dañuy leer dañuy mel ni ku am xaalis seen fit day dal puisque yonent bi la ñu àndal ñooñu bi yàlla xam ni nit ñëpp ba noppi ñooñu yàlla daf leen a bàyyi xel ndax xam ngeen ni xeetu jaamu yàlla yi shahadatayni as-salaat az-zakaat as-sawm hajjul bayt liman istataa juróom la benn rek dañ ci bokkal yàlla mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul beneen xeetu jaamu yàlla bu ñu bokk ak yàlla yàlla du woor moo ko def nit bi wëriwul demul kaasa zakat wóor la zaat zul quwwatil matin moom moom lépp julli yàlla du julli ku muy julli yonent kon benn jaamu yàlla lanu bokk ak yàlla di ko def mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom xéewalam ak dotti koom nekk rek bi dellu si ci ñun allah bu tax gars yi xamoon li nu am ah ko ah, waaye nag ah lii yàgg na ci lislaam la daloon waa Makka hmm. ba yeneen bi romb leen mes hmm. ba dem Madina ba tëdd fa waaw dal na ku ne dal na ku ne waaye yeewu am ngeen ñu tedd ñu baax mu ne kon moom yonent bi tanaqala ahmada nuuran azima leeram gi daal mosul faat day tuxu rek di tuxu ci ndigg góor yàlla di di tuxu ba ci maam Ilias moom def na ca kéemaan loolu irhasat lañ koy tuddee wa fi Iliasin wa fi sulbin li Ilyaasin yulabbi wa yasmauhul bil azimi ñëpp di dégg yonent bi leeram ganaan labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka daañu naan waaw am na leneen lu ñu rax ah lu dul ñun ñii fi nekk de ndekete boobu leer Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah kenn du moom moo tax mu ne ba tey wa taqallubaka fi sajidin ah min nabiyin ila nabiyin hatta akhrajaka nabiya moom yonent bi min nabiyin ila nabiyin hatta akhrajaka nabiyan di tukkee ci yonent di toxu ci yonent di toxoo ci yonent di dem ci yonent ba bi muy génn keroog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak leeram bu tedd gam moo tax ila al ila al habibi wa ma'i bi hada shahidun wa dalilu ñu ne ko doxee wax ne amma dalilu ida zakarta muhammadan saara dumu arifina tasir moo tax jamono jii ñu toll temme adduna yëpp xool yëpp a ngi jéng jëm ci moom waaw mooy actualité te pourtant tout le temps moo war a doon actualité xam nga lu tax mooy amul dara lu yonent bi bàyyi amul dara lu yonent bi bàyyi mais ku lay wax di la wax di la wax di la wax ba ni ngay duggee toilette te ñun dugg toilette lañ gën a doyadal ci àddina kon yi nga xam ni moom la gën a moom la ñu gën a farataal amul lu bàyyi bàyyiwul dara billahi wal quran booy jimaa ñaani ñaan booy lekk booy naan booy dox ci mbedd booy dugg ci kër booy génn ah booy julli booy dugg jàkka ah, looy def amul lu yonent bi bàyyi amul lépp la ñu jàngal moo tax faajab lil ummi yuallimu arabata yéem yéeme na nag yéeme ku mënul bind turam professeurs yi àddina yëpp bi ñu dajee ñu ne kii nag mooy suñu professeur bu mag bi mais day yéeme waaw day yéeme nekk kon min anfusikum du mën a nekk min anfusihim du mën a nekk minhum yaqlu du mën a nekk moo tax mu andi ko mu yor nopp yor bët di wax di lekk di naan di dem ci marché bi waaye nag ah basharun laa kal bashar de basharun laa kal bashar de du yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ba koor soppiku doon xeer valeur or ah mënul tolloo mukk valeur xeer wallahi lifla mu ne nag yàlla solal ko ci melokaanam yu tedd yi moom yàlla jël jëmmu yeneen bi solal ko rafatan ñeewante ku mat sëkk wa rahmatan fa ida rahimta fa anta abun aw amun haadani fi dunia humu ruhama waaw fa ida saxawta bil juudil mada wa faalta ma la tafaalul anwaaru wa ida xatabta fa lil manaabi hizzatun taaru nadiya wa lil qulubi bukaaru mu ñëw nag ulidal huda fal kainaatu diyaaru wa famu zaman tabassumun wa salaam ñu defee ni fa lay yem ar ruuxu wal malaul malaiku xawlahu liddiini والدنيا به بشرى وحديقة الفرقان داحكة الربا بالترجمان شظية غناء والروح وسدرة المنتهى moo tax gën a àddina yonent bi ah moo leeral jamono moo defar jamono même jamono demoon na bay xaddi jamono demoon na ba xaddi demoon na ba rëccu luñ ko bindee mais keroog bi yonent bi ñëwee te ba sumul wa jamono ree soppiku jëmm bees tàq am doole dëgër tëj taxawaat ba dëgër ree ne ah ki may jooyanti gane na àdduna ki may leeral mooy yàlla ku ko fiy jëlee gane na àdduna dóor koo mën te defu la dara ki ko fiy jëlee gane na àdduna jigéen ñi ñu daan jaay ci dara yi ki ko fiy jëlee gane na àdduna ñu ne foofu rek la yem mu ne ar-ruuhu wal malakul malaayku pourtant jibril ak ñoom ñëpp tey jii dégg nañ waaye ñu ne foofu rek mu ne déedéet wa diin wa dunya bihi bushra diine yi nga xam ni ñoo fi nekkoon boo leen adiyaan yëpp doon gàttalu diine islam ndax wa man yabtaxi xeyra islaami diina falan yuqbala minhu wa fi l axirati min alxaasirin diine jooju ki nga xam ni moo koy jooyanti jubbanti ko ba mu mat sëkk gane na àddina diine daal di lay mu ne nag mu jox ko rafatan ak rahmatan mu ne tam wa axrajahu ila alxalqi safiran sadiqan mu génne ko ci nit ñi tam def ko ambassadeur am moom yàlla bu dëgg bu jub wa jaala taa'ahu taa'atahu yàlla def topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di topp yàlla yàlla def topp yàlla di topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu def tam mawaqifatuhu mawaqifatahu dëppoog yonent bi mooy dëppoog yàlla dëppoog yàlla mooy dëppoog yonent bi moo tax yàlla wax ni wa man yuti rasula faqad ataa allaha ku topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek topp nga yàlla te ku topp yàlla mucc nga àddina ak alaxira wa tax yàlla wax ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin neexul ba neexul waaye suñu waay tànn gi ko tànn yónni ko ci yéen cause bi rek mooy yërmande yërmande ngeen lan lil xalqi déedéet lil jinni déedéet yéen lakum ñeel leen moo tax moom dundam ñu koy gis ak duggam ci biir bàmmeelam di fa dund ñun moo yem ci ñun yonent bi bu ñëwaatoon sax ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko soppee mënuñ ko ci àddina bi ñaata milliards ñooy dund demal ci gox yi ay milliers de personnes ñoo nekk di màggal lii ñooñu tam bu yeneen bi ñëwoon tam ñun ñii ñooy toog daal ba xam ngeen loolu ndax léeg may wax ni ki naan am ah, man daal dama fi yonent bi fekkoon déet <laughs> ba xam ngeen di yonent bi ah, ba muy ñeewante ak di ñaan ak di wax ni sama soppe yi saxaaba yi ñu ngi fi waxu leen ñoom de saxaaba yi laaj ko waaw ñun kon duñ sa soppe mun leen déedéet yéen samay saxaaba ngeen sama soppe yi mooy ñi ma gëm te gisuñu ma gaañaa ngi nii ah leen toogaay rafet leen gars yi malaaka yi foto leen yóbbul ko ko waaw tey la lan tey la guddi àjjuma tubaalu amaaluna yawmal defaru leen na na jekk salaatu ala nabi na bari amul lu fi waay di def te tey duñ ko présenté bu baax amul ah may leen ñu benn salaatul fatiha اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق لما سبقنا من الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ñaata la ñaata la xam ngeen ñun tey jii dañ koy jël nii wallahi wal Quran yonent bi moo ko wax nee na malaayka bi jël na ko nii yóbbul na ko yàlla loolu bind nañ ko ay mu taaxin xam ma amin mu ne ci laa yëg ni jot naa ci yërmande yonent bi kon man kenn doon ko dégrade moo tax imaam allahu nuuru samaawaati wal ard masalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaaxun il misbaax fii zujaajatin il zujaaja ka annaha kawkabun durriyun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyyatin wala garbiyatin yakaadu zaytuha yudii walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuur yahdi llahu li nuurihi man yashaa wa yadribu llahu l-amthaala linnaas wallahu bi kulli shay'in aliim. Allahu akbar. ñu ne dafa am waa bi ñuy wax Kaab ibnu Jubayr dafa wax ni al muraadu bil nuuri saani buna sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne al muraad bin nuuri saani huna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo jëlee allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaaxun il misbaax mu ne leer bu njëkk bi mu ne boobu allahu haadi ahlu samawati wal ard mu ne li mu ci namm mooy yàlla mooy gindi mooy leeral mooy jubal ñoñ àddina ñoñ asamaan ñoñ suuf mu ne waaye nag leeral ñaareel masalu nuurihi mu ne kooku huna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne masalu nuuri Muhammad iz kaana mustawdi'an fi l-asaabi ka mishtaatin sifatiha kaza mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane gi ko doon dénkaane ci mboolem maamam yëpp te mishkaatin fiiha wa araada bil misbaax qalbahu mu ne kon li leeral jamono yëpp ci xolu yonent bi la bàyyi ko puisque jant bi doole weer bi biddéew yi ñuy orienté woo leeru yonent bi moo leen di chargé waaw leeru yonent bi ah moo leen mooy chargeur bi waaw mooy chargeur bi moo tax saa bu ñu déchargé woo rek yonent bi la ñuy seet mu naan la rek mu ne walis di jaaja ñu ne waaw mu ne sabruhu waaw est-ce moo tax alquran pourtant ñun daal ndekete ah ndekete daal dafa am maana zahir am maana baatin am maana am am am boobu la ndekete lépp lu ci doon rek lu ci yàlla di wax rek lu dul duma lu dul dëkku yéefar lu dul naa leen caw lu dul mooy yàlla gi lu ndekete yonent bi ci yàlla di wax ndekete lépp yi alquran la yonent bi la ci yàlla di waxal moo tax mu wax ni yàlla dafa dëggal boppam ci sayyidina Muhammad ku wattuwul yonent bi rek yàlla yàlla ñuy waxaat ba tey ni leen gaa man yàlla ki ma yónni jàpp leen ko waaw mooy témoin bu wóor ku yonent bi seede ëllëg rek nga tex waaye yàlla nee na bu ngeen moo leen bëggal waaye tam nee na bu ngeen waaroo moo leen waar waaye yàlla nga koy dëggal boppam ba tey wa daa'iyan ila llaahi bi iznihi yàlla nee na woote bi muy woote ci boromam subhaanahu wa taala yëg leen ni ndigalu boromam rek la nekk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tey ba tey wa siraajan moo tax yàlla ne ko alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladi anqada darrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab yaay yaay xoolal yaay ni mu neexee bu xëy rek ne yaay ba leer gi day yëngu doon ba may dem xoolal nguur ni mu neexee ah nga xam ne suñu réew mi coow li ko nii ñi mosoon ñi mosoon nguur gi ak ñi yor nguur gi nii ni mu neexee ak ñi bëgg a ñëw pour damu neex neexi ñett ñii ñoo waral coow ña mosoon nguur ñu leen di xàllal gan yi ñuy jàll di signé billet toog ci clinique lépp seen ak ñi ko yor nii bañ a wàcc ngir ak ñi ko dégg bëgg ko ñett ñii ñoo waral moom nguur la ko bàyyi nguur ngir yonent te foofu nguur googu amul foote du nguur gi ndono la moom la ko bàyyi maamam moom lépp mu bàyyi fa loolu yëpp daw ay kilomètres tumuraanke ñaata at ñëw ci nijaayam nijaayam ne ko ah ahmadu mu ne ko ah man ko fii nag kër yàlla la amul yaay ak papa ak nijaay ak maam de mu ne ko lu fi am mu ko yàlla ah lu ñuy def ko boo mënee bis bu jot nga indi ganaar ak dugubu suuna doomam boo ko mënul ñu ñaanal la rek ndax fi daara la te kii ñu ma andil dafa tawat te ginaar lay dundee ak dugub suuna mais boobu Ahmadu xam na li ne moom mu ne ko nijaay mu ne ko labbay mu ne ko bis bu jot dinaa indi ginaar ak dugub suuna bu xëyee ah day dox ci tefes gi rek tëngee bu doxee ci tefes gi rek ku ko séen rek danaan góor Saalum Saalum kii mooy yiw tabax ñëw tàmbal di ko ziyaar di ko la mu fa nekk ci daara ji yëpp ba nijaayam di dem Makka mooy joxe bis bu nekk ganaar ak dugubu suuna ca jamono jooju moo tax Ahmadu xam na li ne ci moom bu baax ah bu ko woon yeneen bi nee capitale christianisme deuxième capitale ci Afrique moo ngi Thiès demal Thiès jànkuwén bu dul woon lool ah xol bi yëpp saa moo fekk naa buy dem nag yóbbaale ñoom maam Ousmane comme ñoom ñoo doon xelal maam Wahab maam Aliou bu ko defee rek maalaaj moo fi def ñun dañ fi def ñoom maam Assane ñoom ñëpp ñoom après ñu dem Saalum di bay bu ko defee bu gàmmu jotee ñoom ñu gàmmu fi kon Pape Babou ñi lay waaw mu nga kon waaw mu nga al al ni'matu ilahi ba'athahu rasul sallallahu alayhi wa sallam waaw min afdal tamami al-manhi wa sanani min allahi li rasuli al-karim annahu subhanahu wa ta'ala wasafa fadlahu ta'ala ala nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam bil azim wa kana fadlullahi alayka azima fa hadha wasfun yukshifu an jadil al-'ata'i لأن الوصف للفضل بالعظمة هو العظيم سبحانه وأين وصف الله فضله على رسوله بالكبير فقال إن فضله كان عليك كبيرا moo tax ci melokaan bu ne bu dee teel bu dee rëy lu mu doon rek yàlla melal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek tabarakallahu ñu xam valeur am xam dayo bi ko yàlla jox fa tabarakallahu bu ko defee jëf yi moom waxtu yi mooy xam waaye mbir yi du jeex mukk tabarakallah bis bu nekk ni ma koy waxee rek euh, mooy ñii dañuy napp na rek sunu bàyyi ñoo fi nekkoon di napp na euh, bàyyi Serigne Ahmad Cissé waxtaan na bàyyi Moussa waxtaan na bàyyi Dalani bàyyi Cheikh Kandji bàyyi Diouf bàyyi Diouf bàyyi Diouf bàyyi Malick ñoom ñëpp jaar nañ ci waxtaan yàlla di ko di ko doxal comme tegee ci suñu loxo mag ñi ah ñoom Cheikh Ahmad Sall Mouhamadul Moustapha Ba Cheikh Kandji ah tabarakallah yàlla di ko doxal di ko doxal ba mu tegee ci loxo suñu génération bii ah futur yaa ngi nii góorgóorlu leen rek waaw góorgóorlu ah, toog fii di leen déglu ngeen wax puisque loolu mooy sax suñu baay yi loolu la ñu defal mënoon hmm, nañ ba tey jii. waxtaane fukki guddi yëpp bis bu mag bi ñëw ñu waxtaane ko mën nañ ko xam-xam mayee na ko sagesse mayee na ko xel mu sell mayee na ko baax mayee na ko wilaaya mayee na ko bëgg bu leen nit ñi bëgg ñu toog di xoolanteeg ñoom mayee na ko hmm? bu ko defee góorgóorlu rek waaw ñu ngi am yaakaar bu baax ci yéen waaw gën leen a góorgóorlu gën a taxaw gën a gëstu ah bàyyi seen xel bopp rek xam ni bis bu ne day bett ñun ay man doon naa suppléant quatre ans damay njëkk rek am na bis yoo xam ni bis kenn day déserté wala mu feebar rek imaam ne ma xaalis ma ne ko waaw mu ma ah diw na dafa feebar ñëwal nga ma ne ko lan laay wax mu bitéere ne ma xoolal lii ak lii jëlal lii ak lii ak lii ak lii day jub nga yàlla def ci sutura ak sax ah te yéen yéen ñu gën a bare loolu yéen yéen ñu gën a pare waaw bu ko defee yàlla yàlla doon ñu jàmm waaw bu ko defee sant nañ bu baax euh, assistance bi yëpp tabarakallah sunu mag sunu cheikh sunu nijaay sëñ Souleymane ak waa kër Baye Hadj Mansour Mbaye tabarakallah cheikh euh, waa taax kaw ñii moom bu ñëpp ñëwee gam gi ne ndax yéen Mamadou laa ngeen waa taax kaw ñoo ko laa ko mu dox leen dem taax kaw ba fu leen neex ci àdduna bi ñi laaxoon sama ngénte foofu lañ dëkk lu nu xam ci man ci safaan lu dul jaamu yàlla ak topp yàlla ak bëgg yonent bi toog fi ma sama baay tegoon nañ ko wax kon yéen bu ngeen ñëwee rek ñëpp ñëw nañ waaw yal na yàlla dolli leen jàmm dolli leen sutura dolli leen teraanga sunu frère yi sëñ Ousmane tabarakallahu ah sëñ Babacar ñoom samay kii lañ waaw loolu taxawaay si bi lay ñaanal yàlla bu baax di ñaanal yàlla mbokk taalibe yëpp ndax tabaarakallaahu bu dul yoon mbokk taalibe yi chaque bii ak tabaarakallaahu présence bi nii muy rafetee du mel nii kon ñoom ñi ko taaral tam seen baa ngi ñaanu yàlla yàlla yàlla dajale leen ak leneen ci ñuy di wër ci mbaaxam ak darajaam ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in uriidu illa al-islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqii illa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa maa zaalika alaa llaahi bi aziiz wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh